sëriñ Mouhamadul Moustapha Mbacke mi ngi gane àdduna fukki fan ci weeru tamxarit 1306 ci gàddaay gi yamook altini fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru septembre 1888 ci dëkk bi ñuy wax Daaru Salaam fekk jamono jooje sëriñ Touba sancagul dëkk bu sell bi di Touba fekk jamono jooje itam moom sëriñ Touba ñi ngi ko doon wër bi ñu yëgee nag ganeek àddunaam moom sëriñ Mouhamadul Moustapha ci leen ko yëgalee ku tedd ki di Cheikh Ahmadou Bamba fekk nag jamono jooje ñi nga xam ne ñoom ñoo ko wutal aw Ndour euh, bokk na ci itam Serigne euh, Mbousobé Bousso ak Serigne Mamor jaara ñoom ñoo ko wutal tur tuddee ko Serigne Mouhamadul Moustapha moo wële tuur nag ñoo ngi ko jokk ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom Serigne Modou Moustapha bokk ci euh, ki nga xam ne nag moom moo di waajuram wu jigéen di soxna Aminata waaye moom Serigne Modou Moustapha itam am na ñeneen ñoo xam ne ñoom la bokkal soxna Aminata ku ci mel ni Serigne Ahmadou Makhtar Dieng waaye ak ki nga xam ne rek moom moo di Serigne Mouhamadul Amin Bara mi nga xam ne rek moom moo di euh, borom euh, guy mbind waaye nag liggéey gu am solo gi nga xam ne itam ñoom jamono jooje doon nañ ko liggéey rawatin nag ci yoon wi ñoom ñooñee ñoom ñoo jox tur ki nga xam ne rek moom moo di Serigne euh, Mouhamadou Moustapha ci jamono jooji moom soxna Aminata Lo laata muy ñëw ci ku sedd ku tedd kii di Serigne am na feneen foo xam ne itam jotoon na faa jaar am fa tamit ñaari bant moom Serigne Mouhamadou Moustapha ak rakkam ju sell kii di Serigne Mouhamadou Fadel ñu ngi dalee jàng fi nga xam ne rek rek Serigne moom moo leen dalal fi nga xam ne rek moo di pencum Serigne Souhaïbou waaye nag ci wàllum njàng moomee gannaaw ba ci soree yóbbu nañ leen ci ndaam ci daaru alimul habib kii Serigne Ndaam Abdourahman Lo ngir ñu eggale ci lu jëm ci wàllu njàng moom waaye itam jaar nañ ci loxoy ki nga xam ne rek moo di Mame Thierno Birahim ci noonu itam ci la ñu wéyal seen mba njàng moom Serigne Modou Moustapha ba bind kaamil waaye nag jamono ji nga xam ne moom lay bind kaamil fekk na jamono jooje Serigne Touba nekkoon ci wàllu tukki géej gi gannaaw nag ba mu bindee kaamilam boobee sëriñ bi euh, jot na ko gis jaaree ko ci benn taalibe boo xam ne moom moo ko won kaamil boobe di sëriñ Abdoulahi Ndour moom sëriñ Touba itam kontaanoon lool ci li nga xam ne rek moo di kaamil boobee nga xam ne itam euh, jot na ko bind bi ñuy demi gànnaar itam ñoom dem nañ foofee moom ak sëriñ Fallou Mbacke ngir eggale lu jëm ci wàllu ko njàng atum 1903 ba 1907 nekkoon na itam ci dëkk boobu nga xam ne moom la ñuy wax ci yéen jolof nekkoon itam ci fi nga xam ne rek moom moo di njaareem waaye nag ci ndigalu sëriñ Touba liggéey gu am solo gi nga xam ne itam jot na ko liggéey euh, ci jamono jooje lu jëm ci wàllu jumaa ji laata Serigne Touba di génn àdduna moom liggéey boobe itam mu jëm ci wàllu ko raay bi ak yu ni mel ak ni nga xam ne nag noonu lañ ci war a liggéeyee moom Serigne Modou Moustapha bokk na ci ñi nga xam ne moom moo andi bi fi nga xam ne rek moom moo di dëkk bu sel bi di Touba jële ko njaareem fekk jamono jooje Kaolack njaareem la woon waaye nag jamono yi nga xam ne moom la ko indi nekkoon ci ay jamono yu metti ndax ay conditions yu metti yoo xam ne rek jotoon nañu ko koo tegal ci wàllu googee ndax euh, kilomètre gu nekk ñi ngi ko ko doon jaayee lu toll ci deux cent mille waaye nag loolee lépp terewul conditions yi nga xam ne jotoon nañ ko ca tegal ngir mu andi bi ci dëkk bu sell bi di Touba moom itam sàmmonte woon na ak moom ngir li nga xam ne rek moo di jumaa ji nga xam ne Serigne Touba moom la fi bàyyi woon liggéey boobee ngir ñu mën koo matale moom Serigne Modou liggéey liggéey bu am solo génn àdduna fi nga xam ne rek moom moo di euh, Daaru Xuddoos ñu denc ko ci wetu ku tedd ki di Serigne Touba Cheikh mat Bamba